salaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit ji mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu suñu jëwriñ sëriñ seex Ndiaye ak sëriñ As Guédé ak sëriñ Modou Ndiouk ak kullu jëwriñ ju nekk Touba Brazil tey jii nga xam ne mboolem fédération bu nekk Brazil ki njiital sëriñ Cheikh Ndiaye ak sëriñ As ñoo dajale seen addiya doon ko indil Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekkal Cheikhul Khadim di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér loolu moo doonoon sababu jataayub tey bii mbokki taalibe yi fa nekk yëpp nag di mag di ndaw ña nga fay nekk di daje ngir liggéeyal sëriñ bi ci dëkkam bi ci jumaam ji ci xasidaam yi la cay firnde bu yàggul rek bi ñu waaj a def nañ fa surne xasida bu mag boo xam ne kilifa yu bari teew nañ fa ñu ngi ko defee woon São Paulo te loola day gën a yaatal rek ci sëriñ bi te it ñoom jëwriñ sëriñ Seex Njaay ak sëriñ Aas ñi ngi naalaaj yoo xam ne ci dëkk bi la wala ci jumaa ji ak mboolem liggéey boo xam ne ci Touba la jëm ak ci sëriñ bi ndax dañoo am pas-pasu suñu liggéey ak suñuy jëf ak suñuy wax du génn daray sëriñ bi ndax noonu ko sëñ bay naan magum Bamba moo gis ma ngaakum magam ndawul Bamba moo gis ma ndawam ndawi sëriñ Touba yi nekk Brésil it nanguwu ñoo des ginnaaw ci liggéeyu sëriñ bi. yëg-yëg bi moom ci murit bu gisub sëriñam jàpp naa ne xel daju ko ndax loolu sëñ mbay naan sëriñ bi sa digg ak yàlla raw na xel ak xaram te raw na digg ak gis seenu diggante dañoo ëlëm mooy suñu diggante ak sëriñ bi rek bu ñu ko gisee yëg-yëg boobu la am te dañuy wax ne ku dul yow ak mën a yam day gindi def fi lu baax delloo ci mbon bonam yow rek sax ci lu baax sax gim sax ci lu baax ba boo ko gisee sama xel du nekk ci lenn safaan loolu mooy waral waxtu wu nekk ñuy am pësiyëf ak cawarte di ñëw di jàkkaarloo gi moom ci tedd ji nga xam ne soo ko gisee rek mbégte mi nga koy ngay gis loolu bokk na ci li tax ñu nga xam ne itte juñ am rek ndaw yu Brésil yëpp ànd ak suñu mag yeeg suñu kilifa fa nekk ñëpp waxtu wu nekk rek ñuy jóg ngir ñëw fii di siyaare si Cheikh Mamadou Mountakha. waa xam nga euh, Brésil dafa rëy 27 état la état bu ci nekk am nañ fa fédération booy xool wala boog yi ci ëpp yi nga xam ne fa la Sénégal yi ëpp am ñu fédération yooyu nag bi ñu ko boolee moom la ñu tuddee confédération Serigne Cheikh jiite ko loolu nag bu ñu doon lim daayira yi xam naa dana takku. ndax ñun bu dee ci gom bi gox bi nekk rek mën nañu wàññi 18 eh, wala 17 kon yaakaar naa bu ñu boolee yëpp danañ am moom juróom fukki daayira soññal suñu bopp waaye di soññu mbokki taalibe yëpp liggéey bi sim bi jot na ci sim bi gis na kàddu cant ak ñàkk lettre bi dañ ko jàngale ngeen dégg ko euh, di soññal suñu bopp soññal mbokki taalibe yëpp lu ñu mën a góorgóorlu ci liggéey bi Serigne Touba ñu yokk suñu suñu góorgóorlu baax a baax ndax kat leen dafay desutut Serigne bi nag am nañ ci tawféex ndax tawféex mooy ñëw si siyaare ko moo xàmmee no xamee ko xam ne euh, amuñ ci benn benn werante kon ña fa nekk te nga xam ne ñoo joxuñ addi mu teg ci loxo suñu seex ñu ànd ko ñëw ne leen ne addi ji sëñ bi jot na ci sëñ bi cant na gërëm na kon nañu yokkal laxasaay yi te góor góor euh, góorgóorlu te boole xool yi xool nag bu àndee rek liñ bëgg lépp nañ ko am incha allah. waaw bi suñ borom dogalee ñu dajee le 19 juillet bi passé nga xam ne ginnaaw ba ñu amee ay fédération yi Brésil gépp ñu ne nañ lëkkale mboolem fédération yi def leen confédération ñu jël ma ci liggéey boobu ànd ko suñu askan mi ci dëkk ba ñu nekk di fi liggéeyal Sëñ Tuubaa muy São Paulo euh, ñu ciy sant nag Sëñ Tuubaa bu baax ndax li Sëñ wax rek moom liggéeyal Sëñ Tuubaa rek moo fa des te ñun ci pas-pas ak ci passif rek ci la ñuy ndax sëriñ bi moom lépp mooma ginnaaw nag <coughs> moom lañ am te kenn du moom waaw faaw ñu ñu ñu ñu wane jëfi taalibe te it liggéey bi nga xam ne ànd nañ ko ñu gis ci avancement bu wér ndax booy xool daaw douze millions et quelque moo doon addiyee ci ren ñu ngi ci seize millions. ak yeneen 715 mille yoo xam ne nii mi ngi jëm ci université bi muy lépp moom la sëñ bi ci lettre bi kon nag loolu avancement la day wane ne ànd gi ñu ànd rek ànd gu dëgg la sëriñ bi yàlla ñu ko jàppal te teel ñu ko làqal ñu ko fu yàq yëgut waaw. jébbal si suñu àddiya nekk mbooloo mu nekk fële ca Uruguay waaw mbooloo mu tuut daayira bu yees soog am ñeenti weer ñu ñëwoon àndaale ak waa Brésil jébbal si àddiya ji waaw ni ñu ñëwee ñu sëñ bi dalalee ni ñu ñaanale dal xel bu baax a baax. ñuy soñ bu baax a baax. ama xanaa bu ñu gisee lii gën a góor góorgóorluwaat rek gën a yi te xam ne lu dul liggéeyal sëñ bi rek liggéeyal sëñ bee ko gën waaw ni ñu ñëwee nii ak li ñu fi andi fas ko yenee xeeb dox jëm ca rek bu ñu demee takkuwaat jaajuwaat ñaan suñu borom mu yokk rek talaw ba ca kanam kanam ak borom Touba.